ñu jàpp ko nag ci li ñu gis ci ci ci xibaar ne c'était du 23 au vingt cinq waaye euh, dañu ci dalal koo xam ne euh, mën nañu caa wax lu gën a leer macha allah maam Ousmane Sène Blay euh, ma amaat mbégte lool jàkkaarloowaat ak yow ci démb ak tey muy sunu ñetteelu waxtaan macha allah ci émission bi yàlla na yàlla gën a guddal fan gi itam dëgëral yaram bi. Euh, doonte wér moom du yomb ci mag waaye yàlla <laughs> may la kàttan goo toogee ak ñun gunge ñu ba ca kanam kanam seen ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm itam ci euh, occasion bi nga ñu may ñu mën a séddoowaat ak yow li nga xam ne jot nga ko dund démba euh, ba di ñu ko nettali tey amin yaa rabbil alamin bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah ma sante yàlla julli ak sëlmal si Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam di yeesal sama yaakaar si sama sëriñ Seydi Aboubacar si su ñaan sama ñaari waajur ñu xippee si bal Seydi Asmalik si di am lool sama sët sama xarit Fatia Ngom nga ñëw seet si waat ma di am une pensée pour ki ma booleeg yow muy Ahmed Saloum Boye yal na ko yàlla xare àjjana teg loxoom si njabootam maa ngi nuyu soxnaan sama xariti jabar la yal na ko yàlla wuutu si jëkkëram danga ma seet seet tey pour ñuy wax li xewoon Ndakaaru en 1940 mu nekk ñetti fan yu doy waar booba Ndakaaru doom melul nii mu ngi yëm plateau Cap Cap Manuel ba kër Serigne Abdou Aziz si Gueule Tapée fële la Ndakaar yemoon amoon ku noo capitaine Maya fa la dëkkoon foofu moo yar Louis Alexandre bu fi nekkoon ministre. maa ngay fàttaliku su tuddee ba guddi am na fasu daan ñaxal deux heures du matin jëm trois heures du matin ñu wax ne ndag daawur la ñu wax ne fas wu bere tànk la wan daal bu bu bu guddi waan bu ñaxalaan daal fi ñu tëdd ñun ñëpp da ngay sentir une certaine frayeur ndag daawur la ma ko doon seet fu mu dëkk si Ndakaaru da nga dem téeri baay soogi xët ba euh, Cap Manuel foofu Ablaye Matar Diop dëkk Grand Seigneur Dakar ñu bari foofu wax ne la dëkk maanaam daal énigme la ba tey waaye daal jëpp de génération ak yeneen mag tuuti daañu ko daan ba guddi di nga digg këbër këbër këbër fas wuy daw di di geexal bu geexalee nag da koy sentir ba fi nga tëdd su ko defee ñu ne deg daawur la. kenn su koo teg bët. day adhéré am nañu ne xam nga moom nit ñi nettali du dafa doy waar. Hmm. fas la fas yi benn benn bakkan la benn benn benn tànk wante sëriñ Aadu Ture bu faas yàlla yàlla yokk leeram. ne ma doom la ko euh, Touré mun a jide koo gis doo ko nettali kon loolu nag moo xew France nag bi guerre quatorze jeexee ñu bari fa la ñu des si doomi Afrique tirailleurs ñu mais y avait toutes toutes les nationalités waa laawof waa laaxeef ñëpp mais daal ñëpp dañu tudd travailleur sénégalais ba 1939 beneen guerre am ñu wax la guerre 39 45 Allemagne jekkoo français yi lool envahir leen nongu France boo tax France ku la wax Marshal moo ko jiite wante auparavant dès 1939 Allemagne dañu ak dañu attaqué Pologne il y avait le syndrome de Varsovie où il y a des milliers de morts avion allemand yi leen tiib ak italien yi ci géej gi si saxaar gi ci suuf si rey ñëpp syndrome boobu nag moom la France bañ mu dal ko le 22 juin 1940 si àll bu doon wax Compiègne Compiègne Compiègne ça doit être dans les Ardennes fa la pété si armistice abdiqué mais quatre jours auparavant le 18 juin 1940 de Gaulle a pu s'échapper dem Londres def l'appel du 18 juin histoire du 18 juin di woote résistance une France libre c'est quatre jours après que Pétain a signé l'armistice mu am le gouverneur le gouvernement bu ñuy wax le gouvernement Vichy wala nag it France amoon nit yi xel lañ or bi si France mille cent tonnes d'or mille cent tonnes laa wax de. Hmm. la ñu yónnee Ndakaaru France la yónnee Ndakaaru. ko rawale am na ku noonu Pierre Boisson qui était comme gouverneur ñuy dugg Ndakaaru au mois de juillet 1940. def ko gouverneur général moom nag pétainiste loolu mooy ñi àndoon maréchal Pétain or boobu ñu indi woon nag mille cent tonnes yu ma lay wax destination du woon Sénégal Mali la woon Soudan français mooy Mali actuellement et ça ça devait être à partir de Thiès Dakar Niger. ndax jot naa dem ndax jotul dem xaw ma si dara mais daal mille cent tonnes d'or ñëwoon na fii Dakar dans les banques françaises destination Soudan français embarquement Thiès bi Pierre Boisseau ñëwee nag gouverneur fii nag de doon ñëw Ndakaaru ndax or bee ko indi ndax def ko bastion lu français taxoon mu indi ko des naa wóor parce que xam nga Cameroun ak Togo sa nekk sous tutelle allemande dugul ñu nag bu war a dugal Ndakaaru ak toute la flotte navale britannique am nañ sax ñu ne air air air air nawi ñëw na l' britannique mais gëwuma ko boobu nag tout tànk la maa ngi doxee ñaay cokkeer wala parc zoologique la aar ñu bari fa ñu làqu woon ah ñii nag ñu jot jël saxaar Kébémer Ndande ñu bari génnoon Ndakaaru premier le le vingt et septembre la première attaque Pierre Boisson ne dogal doo dugg doo dugg Dakar dogal la nga c'est pas il était accompagné de toute une flotte navale ñu mun a Pierre Boissonnet la France m'a confié Dakar et je défendrai Dakar jusqu'au bout malgré ses plusieurs sommations mu bañ di ko soqi bateau yi ne ko si port bi yëpp la ñu doon couler hmm? waaw. kon De waajaloon na. waaw waajaloon na waaw. te foogoon na it résistance bi mu fekk du ko fekk ah am na soo demee Kumba Kastel sa Gorée am na kadoo go wax deux cent quarante moo riposté le premier jour le 21 septembre le lundi ah riposte de Gaulle nag dal Gorée daaneel imprimerie ba Euh, école nationale du Sénégal bi nekk Tëngéej Gorée la nekkoon école doomu aadama bi am la nekkoon yu bari sama kër bàyyi nga nekkoon Gorée jaroog église ba suñu ko bombardé parce que épreuve yëpp yu daal di bal bi dal bal bi sëñ Babacar mu nga ne mu nga entraîne dans le rue 15 sa sa tëddee waaw ñëw fi yéen fekk ko fi. bal ba bal ba dëltal leen nag dafa kër kër ay jaañeen la woon ñu bari gaaju fa waaw taalibe jubal tilleen di sëriñ Babacar génnal Ndakaaru sëriñ Babacar ne leen du ma dem du ma leen jiite si julli yi jiite leen si daw yi bali fi la mu fekk bàyyi la ma ñaan ràbbi sama wàcc walla di ñaan suñu borom mu sell ko kooku c'est le 21 le 22 nag euh, dugal entré en action nag Sénégal entre euh, l'armée française it entré en avait trois patrouilles français qui doon rôder au niveau de Dakar entré en action mm-hmm. waaw bombarder les bateaux de De l'aviation française basée à Ouakam naaw. bombardé leen Dakar était imprenable waaw De Gaulle passe stratégie xam militaire la chef de guerre mhm. bëgg a contrôler Dakar par yeen yeen gi waaw yeen fa la foofu it prennement metti mu riposte si jokkul juure jokkul juure njaayeen gi tëngéej bi xam nga géej gi benn la. ak te bu kano yi tàkk da nga gis melax melax bi. Mhm. lébu rek génn di seetaan bari lool si place bi bal ba yow fekk leen fa. Hmm? waaw waaw. il fii ci Tëngéej. waaw ah jokkul jokkul jokkul ja jokkul njuréen moo di yaay yàlla ko fa yàlla bàyyi keroog yaayam si la si la gaañoo. ati yaay bokk na moom la deewul. blessé la woon la bataille n'a n'a duré que deux jours la du 21 au 23 mais la véritable bagarre c'est le 22 et le 23 maintenant je laisse aux historiens de me confirmer ou de ou de m'infirmer boobu nag Ndakaaru melul ni tey dafa amoon ay kilifa lébu gi booba moom moom ndaxaaru wute naag tey ñu jàpp si nag te ñun pays de religion de tradition du fi jóg mukk waaw sëriñ Babacar ne nañ bàyyi mu ñaan tombe taxaw ay gaaf wala wala bu ñaanee la sedd la bataille naa duré ko trois jours dëggal jël jël jël batoom dem yoonam. kon daa mujjee wàññeeku. dafa mujjee ko wàññeeku waaw. am na ku la wax Pierre Boisson góor gu dëgër la woon. di ki leer nag ñëwul seen ñëwul Dakar boo ma Dakar ki leer naa rien à voir avec ça wante xam nga ñun Cheikh Tidiane si Maktoum. yàlla na yàlla yokk day wax ne aada fu mu fekk diine daaneel ko bu bu la tamxarit fekkee màkk wala tabaski walla korité day mel ni dara xewul wala sax gàbbu wate fii la gis nga ni moo mel kër gu la juróom benn xar wala juróom ñetti xar si benn kër bu tamxarit fee ñu rey nag dafi cere ñaan marché yi ceeb bi yokku na euh, sobiteer bi yokku na suupa bi ji yokku na te aada rek la loolu nag boo fi amoon te ñun ay jullit la Bassirou Diagne madame neex naa yore ba lu tax ma koo may xaalis mu jël n'importe qui koo waar si yàlla mu nangu réew la mu tolloo moo si des loolu fi amoon nag dina amoon ay kilifa boo demee kër Alaaji Ibrahima Diop Youssou Grand Serigne Dakar si butu kër lay toog lal piliaan yore kurusam ku ñëw fekk ko fa nëbbuwul kenn boo demee kër Aliou Mbo kër Mboor Diagne kër Mbaye Diagne Dégay kër Ismaïla Guèye kër euh, Thierno Amath Mbeng euh, kër Bagam Ndiir kër kër Alsane Ndiir kër Paala Pay kër Gourdaaru Guèye kër kër euh, Baye Guèye ñëpp Alaaji Njóogu Guèye ñëpp koo fekk su ma këram doo laajte doo dëbbuwulu kenn wute naa tey Ndakaaru googu nag la sëriñ Babacar am woy bombardement yi tàkkat naa se foo tollu melax melax maa ngi dafa doy yàlla si la mosul si guerre ñu ne ko dem mu ne du dem du ma si jàkk yi jiite si daw yi bàyyi ma bàyyi maa yu bokk bal yi loolu daal euh, Fatou Thiam Ngom moo fi xew ñàkkul nag leneen lu fi xew ginnaaw kon daal man ak changement ba mu tuub tànk laa wante man sama nijaay dafa dee quatorze dix-huit samay mag ñoo xam ne sa mag yaay leen seen yaay sa mag yaay la ñu ba dem si kat 39 45 ñii mu fekk leen fi ñii dellu si ñii des foofu ñaay cog gu ma dëkkoon nag sama nijaay sama maam Samba Sala boo ko moo ko boo ko boo ko boo ko boo ko sanc maam nijaay ju dox Malick Diallo allah moom un géant keroog bi noo génn jaay ci di génn di dem yaraax parti zoolise def na moom du dem ak njabootam du bàyyi quartier bi demul moom moom dañ doon daw bali ba ñëpp ñëpp génn Dakar Dakar kenn ah kenn desutu bu doon teyaat de tukki hmm? kon ñu piyee ko kenn desutul Dakaru quartier ay cëddeem ay yàq jëf ay kilifa yu mënul daw ñoo fa des hmm? waaw ay xale lu pour ñu bañ am pillage hmm. jaajëfal ko nag ku wax góor gu am na doom boo xam ne ñu ko wax maam Jacques Diop je l'ai perdu de vue depuis plus cinquante ans ak sama doomam Malick Diallo sama nijaay ak i doomam demuñu ñoo toogoon sa quartier ba am na ku wax Doudou Diallo Coumba Diouf amoon na ku wax Ngaj Saada ñooñu ak Abdourahmane Diallo Fat Diallo jur ñooñu debu ju ñoom mais nag ñaari fan leen am lundi matin leen dem yaraax am na ñu génn réew mi nag am ñu dem ngaay mbexe am ñu dem fu ko sori foofu sax waxte ju daal lébu yi dëkk Ndakaaru waa pëj cëddeen yàq jëf guy salaat plateau muy kaajal ñoo ñëpp Medina ah bu quatrième jour ci fekk na ñëpp ñibbi siwaat dugal dem ba en 1945 France no gagné Allemagne génne leen dëkk ba loolu xew ba tey waaye nag li ma la waxoon léegi nous sommes un tradition éclair mm-hmm. jéege Dakar wooyu leen ko de góor ki leer góor yu faatu leer parce que xam nga ñaar doomu aadama day bëgg ñett day am yu mu bëgg day bëgg ku ñeme day bëgg ku rafet day bëgg ku ku ku ku yëwén waaw boo yëwénee mbaa nga rafet mbaa nga am xel mbaa nga ñeme di nga di nga di nga am xarit ba am xarit yu la xamul sax bëgg la rek ba tax yi wax ay oculaire loolu daal en résumé sama sët looloo xew si li ma wax mais nag du ma historien kon nag sama baay bi doon attaqué Dakar mm. amoon na ñeent fukki ak benn sama yaay am ñeent fukki yu wiir boobu situation nag te man naka jekk nag ay xarit yu mag laa mus di am moo tax ñaaw li may mën a wax xale yu bari du ko mën a wax parce que man maggi magi lébu ndakaaru yëpp nag fréquenté naa la nekk xale ñii mag seen dooma maase ñii sama xarit bàyyi lan loo tax ma xam lii ma xam ak nag di gëstu it parce am na loo xam kenn mu ko nettali loo fekkewul loolu daal euh, ngoom moo moo doon li ma xam léegi nag maa ngi toog di la déglu soo ma laajee leneen lu mun tontu ma tontu la. keroog euh, ba yëf ya amee yan yàqu-yàqu la jural waa ndakaaru bu weesoo tiitaange gi nga xam ni def na ko ci ñoom ba ñenn jóge fañ ne woon di daw ni nga ko waxee. li wër daal. ak part bato yu ñu coulé si port bi ñaari événement rek moo am bi nu bo bi nu bombardeer ak bi nu ak bi nu bombardeer fii jokkul jeex na yàqu-yàqu amu fi nag parce que aviation ñu française bi basée à Ouakam ñoo jóg teel teel a bett hors d'état en dehors daal bal bi daal bal bi daal rue onze ak bal bi dal te te géej amul yàq-yàq amul si waaye tiit nag ñëpp tiitoon fu ñu mën a natt dégâts yi ca am na ñu bari ñu fa gaañu. wante xam nga bu jamono booba jamono melul amul rajo amul. lu si am ñu fa dee daal bari nañ. am na yi jàqare waaye te mun la kenn wax la du mu toll. gii nag it am na ñu bari ñu dee. waaw si jokkul jokkul njaayeen gii waaw xam naa nag ñoo ñu fa nekkoon yëpp. parce que quarante léegi ñu bëgg a yàgg ça fait soixante dix ans euh, daal mag ji ko fekke woon ñu bari dem nañ ñu nag tout tànk la woon mais toppa doon trace yi loolu daal ngoom euh, si li ma xam loolu la yàq yi yàq yi nag bariwul wan daal li si gën am ràññee daal mooy waxi Sëriñ Babacar bi kaay dem mën a lu déedéet dumal jël si jàq yi si yàlla gisee si daw yi loolu du ko def moo tax euh, Ngom ñun dañoo sàmm suñuy kàddu kàddu lu koy rafetal am na ñoo xam koy wodd wante mooy dëgg wala loo neex wax loo neex def nettali nettali nettali bu ci te nett yàlla na rafet démb ak tey ngeen di teewlu ñuy dalal suñu maam Ousmane Sène Blay di waxtaanee li xewoon Ndakaaru atum 1940 euh, fii ak euh, benn ñaar wala ñetti fan ñu fàttalikuwaat ko ndax mi ngi xewoon diggante ni mu ko waxee 21 septembre euh, jàpp 23 septembre atum 1940 keroog ba yëf ya seddee Serigne Babacar si ban gis-gis la nit ñi am ci moom ndax taxawaay woowa mu ci am ñaan yitam yi mu ci am ñu bari gëm ne am na njeexital ci li nga xam ne moo xewoon keroog. waaw. France moom la France woo. moom Serigne Babacar. ñoo ñaan pour guerre bi tas. Hmm. waaw. mu yebal Serigne Mansour. borom daara ji. bu mag. ah bu mag. Serigne Mansour bu Alaaji Maali. c'est hmm. la guerre bi tas it hmm. waaw. fu mu ko yebaloon. Euh, mu ne bàq ñaan yi. makka waaw. waaw Serigne Mansour Serigne Mansour nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp na si niti yàlla la parce que moom Cheikh Tidiane si Maktoum sama mag la woon sama xarit la woon sama sëriñ la woon nee na ma Ousmane bu la yàlla rusee yàlla mu jëkk def planning si àddina hmm. ne du taw wala day tàng wala day lu nekk yàlla koy développé bu ko defee rek kenn mënu si dara wante am na ñoo xam ne liggéeyal nañu yàlla ba yàlla ruus leen lu ñaan yàlla yàlla may leen ko sëriñ Mansour moomu ak sëriñ Babacar ak sëriñ Fallou Mbacke ñu mel ni moom sëriñ bokkoon euh, Fatou man dama dem dëkk bu doo wax Gabon porteur de message du président Senghor au président omeur Bongo bu ma demee Mouroussoir ba noppi ne ma nan ma yóbbu Lambaréné ma dem Lambaréné bu dugg si hôpital ba ñee ngee yuut ñee ngee dee ñee ngee nelaw muusi la lu nekk xew na fa rek ma ne fii booy fa ñu ne mooy Lambaréné ma ne Lambaréné ban bi Sëriñ Tuubaa nekkoon ñu ne waaw ma jóg def ñaari ràkk mais wala yu Serigne Touba d' accord naa si ñi ma àndiloon si gidde yi dama lu tax man yaa soixante quinze ans Serigne Touba fii la ñëwoon man maa ngi ni wàccu naa bëgg a te wóoram tey su ma demee du ma du reer parce que lii ba gis fii daw na sama yaram waaw ba xool soixante quinze ans auparavant nag gaynde yi ñey yi golo yi matt mutt mutt yi Serigne Touba nekk fi pendant cinq ans dellu sa jàmm ku ne Serigne Touba amul dara sa yàlla boobu yàlla amul dara sa yàlla waaw. daal lu ko kenn ko man nag dama ko fekkee dama ko fekk baa dem lambari ne kenn nettaliwuma ko waaw murit tijaan laay du du ma murit waaye daal Serigne Fallou fo fo foto Serigne Babacar nekk sama kër foto Serigne Fallou nga fa benn laa ko mos gis nag. wante yàlla ma ko bëggal yàlla ma ko Karim it doom sama jarbaat la awa fay bi ko jur ñu du benn kër gayal gayal ko jur wante nag tiyal la wante daal ku sopp Sëriñ Tuubaa la euh, maam Ousmane seen euh, Blay ñu ñëwaat ci magu bu yooyu yaa ngi wax ne Ndakaaru booba dafa amoon kilifa lana doonoon ñoom seen taxawaay ci xew-xew boobu. ñoom ñoom nag ay français la temps ñoom doon teel a diggaaleeg français yi français jox leen cër. Dakar nekk capitale capitale de la OF gouverneur teel fee ñëw te du jox dara lu dul teewul mag li bu waxtaan ak ñoom. ñu am njaboot parce que ku la ëpp taw moo la fa barke parce que ñun li gaa yi wax si àll bi li dal waa àll bi daluy jun tubaab bi dóoruñu ñu toroxaluñu dañu mus collaboration mus am négocier ak ñun signé ay këyit di lu fay di lu fay luyaas tamit signature yi waaw yëpp waaw du def dara mukk te woo ñu lépp waaw waaw da ngay xool rek fii zawiya Alaaji Malick dekk si Dakar si Dakar si territoire bi. Mm-hmm. nit ki benn nit ki dëkkul woon foofu. Mm-hmm. benn nit ki ñuul ñu ne mooy ñu def ñuy nodde nag di doon di jël di doon di deux quart di doon di takkusaan ak tubaab nu mu nu nu mu fonk liberté individuelle mm-hmm. kon lépp kooku nag lépp yooyu yoo tax mu bu doon lépp parce que plateau googu dëkkoon. fi ngeen assemblée nationale ba jëm ba heure yi sieste daaw fa jaar de. Hmm. mbokk heure yi sieste. Hmm. waaw mbokk jëfandikoon mooy le directeur de service national de la AOF le directeur de douane de la AOF le directeur dang de la AOF de finance de la AOF ñoo ñëw fa dëkkoon benn nit ku ñu ndaw dëkku fa benn nit ku ñu fa dëkk si yooyu. à nag tubaab dina mun sa respecté mbay gi. moog moog moog asew yàlla bi nga denn si wetam alaaji Jóob Géey fa dëkkoon góor gi Ismaïla Géey ba tey mu fa góor góor naaru Géey bagam diir alsaan diir paala pa paala pay ñëpp da dama damay wax toujours dir euh, ji pour pour nekk mairie Ndakaaru plateau da sant Ndooy Jaañ Pay Géey Jóob wala ndiir dafa am ñooyoo moomu Dakaaru Joof bu su dëkk Alaaji Magam diir ba alsaan diir ay bokk la Alaaji ju góor daanu Géey Alaaji ñooñu Cheikh Sadibou mu mag ma falaam soxla géyeen alsaan diir dëkk rii Amadou Assane Ndoye bu da ko rii am William Poti baa ndooy nooy dëkk fa William Ponty balaa nga jël kanam Amadou Assane Assane Ndoye dëkk fa jur Amadou Assane Ndoye góor soo ko om oj soo ginnaaw Amadou Assane Ndoye loolu boo doon Ndakaaru boo demee boo demee yàq ñëpp fekk fa sàmb sàmb yeeg si si si waaw foo dem ba euh, ndox jinne fu nekk lébu yi am baat am juboo nag seen biir waaw juboo boo xam ne wér loolu ba tax moo tax lébu yi ba fi mu toll en 1958 dafa am yëkkatu lool sur le référendum boole ne wéy jox la indépendance ngeen moom seet bopp boole ne déet ñeen ànd ak France liggéey France dominé leen xale yi jóg ne du am dana moom suñu bopp Jadaxoor si ak Senghor wante ba ba Cheikh Tidiane Sy ànd sax tubaab tubaab bu doo wax euh, Graziadi ànd sax sëriñ bu doo wax Baye Niass ñu ko wax Ibrahima Niass li muy ne bu loolu amee ñoom dina dina Alaaji Ibrahima Diop jiite leen Alaaji Mboor Diagne Alaaji Mbaye Diagne Dégay Seydou Nourou Tall ne ko ñooy présenté la la la république Cap-Vert du Lébou nar a woote contre ñoom Dia ak ñoom Senghor looloo tax ñuy wootee wëy wala jooju jaay li jaay yi wax te xale yi nag xale leen te du dañu bëgg a nettali lu ñu fekkewul wal jooju waxul discours yi boppam idée boppam le 28 waxu ko idée parti bi la wax ñeenti discours am bés boobu doom Lamine Gueye Bakar Wali borom ñetti ñetti angal ñetti angal yi moo discours en tant que maire Dakar bienvenu ki si topp mooy Gabriel Darboussi moo nekkoon président du grand conseil de l'AOF e c'est le premier ministre de la justice Sénégal dafa wax ju yenu maada xale policier jànguñu ko mon père était vendeur de sable un coup de vent l'a ruiné waaw wax ji nag dégguñu ko. lu muy tekki. attention on ne bâtit rien sur le chimère waaye nag ngay juddoo si sa euh, si réew mu am six mille cinq cent villages. xamoo si benn ñu war wo ñu xam doon woote am 557 collectivités locales mënuloo si gagné benn am 14 régions mënuloo si gagné benn am 45 départements mënuloo si gagné benn nga xëy créer parti au nom de quoi looloo xew gërëy làmmiñ nag fu lu ñaaw amee nga wax ko 650 cent cinquante a 6500 villages. mille cinq cent loolu fay wax koo si woowoon ñi parti ne chaque chaque région la ñu li ma la 10 villages wala 15 villages du la ko limal. xamuñu réew mi. ab pour kay bi jiite réew mi di président la République maanaam maa ko moom ah moom nga faral. waaw médical ak moom dara nag. mais dama fekk lépp xam Senghor xam Abdou Diouf bu baax ñoom ñaar nekkoon à tuer ak ñoom Abdoulaye Wade mii nu ma ko wan nekkoon sa maître d'internat wu lycée Van fekk naa it palom ma ñett yi fi jiitu fekk naa it pali ab pali Macky Sall wante kenn melu kenn melu suñu moom xuloowul xeexul bu xeex gi ñi gis ñàkkul tëgg ñàkkul teggin ñàkkul kers te fu mu tànge mu teggi loxo sauf sur le principe généraux waaw euh, doom troisième mandat yi ça se décrète pas waaw coow li de mi ngi ne kur ñu ñëw ci tey sax. jóge tuuti ci démb ba coowal troisième mandat gi ci penc mi yow noo ko jàngatee en tant que ancien acteur politique. xamul xamul urée bi ñu ko yàq. Hmm. les intellectuels ak les journalistes. réew mi waaw yéen kenn yàq ko dul ñoom. lu waay wax ñoo ko teg ko. directeurs yi total Sénégal mondial dafa dee. Hmm. benn journaliste dem seeti benn benn di ko laaj kooku mu ne ko man xaw ma ko Demba Kassé conseiller technique président de la République ñu woo ko si émission si benn rajo mu wax yow di wax caricature ak suspicion waaw ñu ah, ñu ngi wax olof waaw ku caricature ko boo ko boo ko waxee ku koy xam suspicion koy xam. a tekki waaw ñaaw njort a ngi solution mooy ñaaw njort caricature mooy yett sa xel li defoon la force de Sékou Touré Sékou Touré génnul beneen université mais il avait un langage collé au peuple ba si yaay jàmme mi mais ku jot wax waaw le le ministre de l'environnement ay kooba yow mosuloo gis kooba yow hmm. mukk kooba amul foofu ñuy di ko fi mu jël benn kooba yóbbu ko si toolam. kooba mooy mooy euh, kii ñu fi doon wax kéwél yooyu. mu jël ko yóbbu ko si hôtelam yóbbu ko si kii pour pour dundal ko. gazelle oryx waaw di ko pour mu am ay yeneen doom ñu ba si àll bi ñu jur yeneen doom parce que kooku kenn ko maye kenn du ko jaay. Mm. ati ay dogale yàlla ñëw mu dem de ñu journée yëpp ne na ko dax pour koy teg ay kooba rek yu mu jël te def ko defar nag. pour réew bi réfugié si yàlla ñëw dogalam waaw su su daal boo génn boo génn ñu wax la koo bay dañ ko dàq waru ko woon ba ñu ànd moom sax de wàll ji dinañ ko dàq looloo yàq réew mi troisième mandat nan bàyyi peuple ku ku nekk def dix mandat bu la wóolu dàq la yomb na wante réew mi ne yow wóolu nañ la ba def deux mandats société civile boo na góor jigéen ñu ne baax na ku sàcc ñu ne bàyyi leen ko ku yàqataar ñu ne bu ko kenn tëj ku rey ñu ne bu ko rey ñoo ñoo xëy rek décrété deuxième troisième deuxième mandat ba ñu jëf ko seen bopp nag ba kenn bu si génn Victor Hugo doom ñëpp kenn wératul ngëm yàlla kenn wératuwul jàngam dafa am ñaar yu ko dal dafa tukki doom jigéen nekk biggéeni biir jëtti weer ànd ak jëkkër dugg si benn kano kano kano bi weer si daanu ñu dee ñoom ñaar yépp mu mu jàkkaarloog yàlla xaw na weddi moom Victor Hugo waaw Demain dès l'aube dafa jar jàngal si école yi noonu la tudd saalit ne yàlla lu ma la def man ni ma la gëmee ni ma la bëggi sama tukki nga ginnaaw ba rey sama doom rey jëkkëram ñeenti weer mais nit doomu aadama doomu aadama lay doon monseigneur Thiandoum Monseigneur Thiandou archevêque premier archevêque de Dakar dans ses mémoires que ko nommé mu remplacer Monseigneur Lefebvre tubaab dafa tëdd ba guddi jóg toog de c'est pas vrai du ma leen nommé moom su boppam de. gëmu ko woon mukk man dëkk petit séeréer. de remplacer un homme aussi aussi aussi grand que monsieur Le Favre mu c'est pas moo moo ko wax nag kenn waxu ko nelawul si guddi gi yëpp am na ko fu ne ministre de l'élevage secrétaire d'État au l'élevage monsieur siège conseil des ministres doo ko rek dans l'émotion mu dof hmm? waaw waaw monsieur siège mu dof noonu complètement ba siège ba nga remplacer le wéraat doomu aadama musul wees munul wees doomu aadama mbënd mii xew ko wax journaliste ñu woo benn waay boo xam ne benn ban bàllu njaafan man Macky Sall dafa sol costume waaw sol costume lu moo sol bu bu soloon te ay bot dugg si ñu ne ñu ne day day wanewu te l'opposition sénégalaise journaliste ñu di nax xam nga y a combien de différence entre Sonko et Ablaye euh, euh, euh, kii aux élections hmm. yi présidentielle. deux millions de voix. deux millions de voix la ko am Macky Sall rawee. tuutiwul. waaw loolu nag bu nu xëyee jël rajo yi bu ne su ma nag contrôlé de. xaw ma ko nag fekk suñu benn xale bu doon Ousmane Diagne. ne ku jàppoon jàmburam la. daan daan toog. maanaam foofu sax mbokk Ousmane Ndiaye parce que Ousmane Ndiaye turandoo Ousmane Ndiaye Ousmane Sonko lu tudd hmm. mais jàmbuloon contrôle ba ko te it li moo xam na ko xam am am na valable am na am na valeur intellectuelle mais ñun ñi fi jàmm leen bugg wante waxtu woo waxee réew mi na tàkk te dañu bàyyi nit ñoo tiital hmm. nan bàyyi nit ñoo tiital guerre baaxul xeex baaxul mais mais journaliste yi nag ku gën ku yëngatu ñu interviewé la conférence de presse bu njëkk bi amul woon daa nga dugg daa nga dugg at am ñetti conférence de presse. bu njëkk waaw conférence de presse événement la woon. ku am loo daan wax lu am solo rek. rek ko yaa koy woote. léegi nag képp képp koo woote conférence de presse su ko réseau de génn ko waaw Balde bi Ablaye Balde bi dee Libi. ku xam Libi. je profite l'occasion pour nuyu sama Ahmed sama xarit Ahmed Khalifa Niass moo ma yóbbu Libye courant amul soo dencee néew mu nëb mu nëb te ku dee dee nga rek nag fu mu la suul yàlla fekk la fa mbokk bi ne doo porter plainte bu bu nu gàttoon xel sax boo ko ay journaliste ñu war am xel ñoom ne ne lii moo xew. war yóbbu dox événement bi rek te loo gis Macky Sall dana ko fal ak ñi mu àndal bu fekkee dañoo yàq réew mi kon kon ñu jàqale fi bàyyi leen ko jàqale kenn nga leen bëgg réew mi en 1950 le 29 septembre 1959 Mamadou Dia dafa am directeur ka bu dox Roland Collin xam nga Jean Collin ñaari ell la référent hmm. colère boobu nag benn ell la ku bu abo amuñu indépendance hmm. le 28 septembre xamul leen woote le référendum hmm. le 29 booba réew mi ni Mamadou Dia le MJPS dirigé par Racine Ndiaye xëy dem bureau Mamadou Dia la à la pri ah boobu mooy président du conseil amuñu indépendance la boo ñëwee da ngay taxaw si butu ascenseur su ja wàccee pour dem bureau nuyu nuyu taxaw si butu ascenseur bu ay camembert cabinet ngeen dugg si bureau bi waxtaan cinq di dix minutes après ku nekk dem kawar ñu nga foor si ñu ma digaale woon mooy Oumar Racine Ndiaye sëñ Babacar Diop Amath Sangoñ ñooñu nag ñëpp yàlla jël la leen yàlla yàlla xare ak jëfe yéex ñu kolee benn benn picc si benn picc si si si si si dom ñebe si ñam di tëb tëb bi parce que il avait woote don Mamadou Dia avait woote wéy jaar ne ko Rolla si tu penses aimer le Sénégal mieux que moi tu te trompes énormément mu xonq cur ci bopp bi. Hmm. Arif xam li ko wax man nag j'avais pas fait attention moom it yàpp ba xandar loolu loolu la kon ba ma gis nga tubaab bi ni mu xonq ma la ko wax munoo xamul tax ba na munoo xam bu ko jeex dëkk boo amul bàjjen. Hmm. doona jóg kaa ñu dem kër sama bàjjen kaa ñu dem sama kër nijaay hmm. doona kaa ñu dem sama kër maam si penc ga armée kenn suulu fa sa maam fa loo lu la xëyal xëyal xëyal da am foo yem. waaw mënuma rolankolee mii amu fi amu fi tante amu fi yaay amu fi maam dëkk France xëy rek bëgg bëgg a jël Sénégal moo tax tax mu rouge ba la ko wax dëgg j'ai pas fait mais loolu mooy dëgg réew mi ñëpp ko bëgg kenn bañu ko boo nekk au pouvoir ak nga nekk opposition yëpp réew mi nga bëgg wax dëgg pouvoir bi dañu foog ne ah, euh, les les droits de l'homme dañu yaakaar ne ñoom rek ils sont contre le régime bi rek boo la attaqué ñu jox la xaalis à l'extérieur te kenn xamu leen nag parce que euh, Fatou moom ku xam luy responsable politique soo la mu la gërëm mu leen bañ a xam waaw liy tabaski korite gàmmu Tiwaawan Tuuba màggali ñaseen màggali Cenaba màggali màggali nja Njaasaan ngénte tëdd bu guddi yi fëgg la dina sama sama jabar dafa feebar yóbbu la hôpital boo dee hôpital tamit dina xaar ñu dara sama sama doom dafa feebar sama jëkkër dafa feebar yépp bu tabaski te nga joxe xar bu ngénte yi te nga takk nga joxe lu laax bu bu bu bu bu takk amee nga joxe nga joxe lu togg bu dee amee nga joxe càngaay waaw ñu ne nag policiers yi daal nangam ak nangam bu fi deful àddina bi tukki. Hmm. ah hmm. yow euh, nekkoon nga ak Senghor nekkoon ak abdu Diouf euh, tey yaa ngi fi macha allah yàlla nga fi gën a yàgg ñuy wax waxi statut de l'opposition opposition ba woon démb ak bu tey bi euh, boo leen tiimee lana war a doon tey statut taxawaayu opposition méngale démb ak tey. xam nga dafa nuroowul. dégg nga du Dia. waaw. Senghor Lamine Gueye ku fii dina am 1945 ñu tàggoo 48 ñu jëkk a ànd ak Senghor bàyyi parti socialiste Mamadou Mamadou Dia si la bokk carte parti bi moo ko defar si kër gu doon góor góor benn pël bu doon góor Ablaye bett Ablaye Diop. en 1900 à la fédération du Mali les Maliens ne voulaient pas que Senghor nekk président de la République dina ko Mamadou Dia Oulamide Gueye Mamadou Dia moo tax Senghor nekk président de la République Senghor ak Mamadou Dia xuloowuñu musu jote dara le 14 décembre dana am ko Théophile Jacques député si la déposé motion de censure le 15 décembre ñu woote bureau politique ak le 16 décembre parce que boo tax parti bi mooy mooy mooy noom mooy noom ministre yi mooy noom président de république mooy noom premier premier ministre mm-hmm. te loolu ba amoon mais constitution bi nag waxul loolu ban réew yooyu le 17 décembre ñu d'accord si baru xuloo xuloo bu metti mm-hmm. Senghor xuloowul ak ak ak kii ak Senghor mm-hmm. ñu ne bu ëllëgee le 17 décembre dañuy retirer la motion de censure parce qu'il fallait 72 heures bu la veillé le jeudi 20 de euh, euh, décembre ñu dañuy tëddee parti bi parti bi décidé gars yi signé motion de censure bi xam na ne bu fa demee il va être condamné te jaajëf la rey après ñu bañ ñu doon woote motion de censure bi Dia Sakho ak Senghor Ibrahima Sarr ñëw na ko. les gens ont monté la réunion de 15 heures Diawo Babacar Ba directeur ak aide de camp dem sa police yi de euh, gendarme bi ñëw dàq leen ñu dem ko la ngi def ko kenn xeexu fa kenn xulóowu fa kenn deewu fa kenn deful dara sangatu jaan di fukki ati kaso fukki ati kaso la jot tëdd hmm. génn ne bàndaa Senghor kenn mësul dégg li jaawax Senghor te fukki ati kaso sa la yàqu sa la gën a bëti yàqu yëpp gën war jow sa la gën a dee Ibrahima Sarr gën a dee Cheikh Mbaye gën a dee Alioune Tall gën a dee alors Diop a été ministre de l'Intérieur pendant deux ans Abdoulaye Fauré moo consulé Senghor ku nekk Senghor dàq na la du caam ñëpp mosuloo génn ku su génn mukk wax wax dara si état bi xanaa jaa bu nekk cinq ans président conseil nekk nekk député français am na lu mu xam. kon mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci waxtaan wi tey ak euh, maam Ousmane Sène Blay dimanche incha allah euh, daanu ko yeggali dikk surtout ci njeexital yi nga xam ni euh, xeexu ndakaaru boobu ci 1940 am na ko gannaaw loola ci français yi waaye surtout ci De mi nga xam ni moo ñëwoon attaque Dakar ba def jee yi nga xam ni maam Ousmane seen Blay mi teewee xew-xew boobu nettali nañu ko démb ak tey la woon ci réew mi FM Fatou Thiam Ngom la woon ci kaddu gi gërëm Adama Diallo mi woon ci jàppandal gi dig daje dimanche incha allah jaa ngeen jëf jàmm